te ab xarnu dootul am bu dend ni kullim ku leen boole woon peeseeg maqaamam sëriñ mu wat leen ci mbootam te wat leen ci na ci ay tegtal yu rëy ngir demu Touba ba nu bala ay weer lan sëriñ seedi ay bidiw sëriñ Bamba moo dib jant Touba na ñëpp def nii nu màggal Sëriñ Touba ba mu dee leeral diine dayoo ji goxam fa saa se mbiram dëppoog la yónneen goxam bi daa dee mu dekkal sunna fat fonk alxuraan saxoo dëgg yónneen mooy jaaram ja xew Touba su sopp Sëriñ Touba ju ko taxaw nu màggal Xaadimu Rasuul fasab yaa mi abdoo xat saba sëriñ bu man musa jaamu rabba ñi fi daa labal dandaa mooy man ma suma mooy yàlla seetal yilla keroog la géej ga fer ba tey di baawaan labbe ya ko labbe ya ko labbe ya ko labbe ya ko bamba yow yaa di ndaanaan keroog la jinne ya maa yomba dikk di jébbuloo nga tuubal Bamba jajjo yoroog najjo yoroog dongoom yaa kakku naa koog kalilu koog moroom yaa ak kiruxu naa kiri nooru tamkiil jinne yi daa siyaare Bamba wiir wiir wayal ilaahi maskani tuubaabaat mi lal mi di jaayo ay suma nabaat wajal di daariya kalmadina barakatan wa kabatan masula yalaw ya fiisu ya salamri ya fayan xalximan bi axri nasi wa diini suma ahli walwala wa maskani لك وديعة النبات وكذا دنياي مع أخرايا ففيما نفسي في الرزايا وسر وساب ناري عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الأهوان أقاربي في ديني أو في دين أجانبي فليكن إذنا ودابا يا زمن تولني ولا تكلني للأحد ورم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا ورب جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك ولي حسن الختام عندك وتذرف صلاة لصحابك لي الإجابة سرية طيبة تجدد نجى نبي المستوى تجتهد والطف بنا وخوينا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واخلي بي حاجة كل مسلم ما نيان كين ku nekk nga jox loxo ki nga dendal ne ko baal maax kenn ku ci nekk na nga jox ki loxo ki nga dendal na ko baal maas yàlla na ñëpp am jàmm barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf yàlla na ko teewee déwén yu bare bare bare jërë ngeen